millions ak juróom yoo xamante ne moom Barthélémy Diaz war na ko fay njabootu Ndiaga Diouf aujourd'hui la cour d'appel confirme cette première peine bi nga xamante ne daanoon nañ ko Barthélémy Diaz ba noppi ban jàngat nga ci am Lamine alors c'est dommage pour lui parce que ñu fàttali ne moom moo interjeté woon appel oui, donc parce que peut-être décision bi génn mën en première instance dafa jàppoon ni peut-être c'est injuste pour lui euh, malheureusement ça a été confirmé euh, avec la même peine. Euh, peut-être li ci amoon solo muy six mois yi moom tëddoon na ko. Euh, li ci des mooy ndàmpaay bi moom il a toujours dit que du ko fay. léegi nag moom xawma léegi il faut mu fay ko parce que aussi c'est une décision de de justice. Mhm. maintenant avec peut-être des conséquences aussi. Euh, parce que spécialiste yi wax nañ ko en tout cas pour. son par rapport à son poste de député de député. Mm il suffit que. le ministre de la justice. écrit une lettre. waaw bind assemblée. que ñu destitué ko. de son mandat de député mais heureusement pour lui aussi mhm. euh, pour euh, le poste de maire de Dakar peut-être que boobu euh, c'est pas mën na ko sauver en fait euh, moom sax il a di que poste boobu moo ko gënal foofu post poste député mhm. mais loolu aussi mën na am jeexital parce que aussi ñu ngi jëm ci parrainage bi c'est vrai que Khalifa Sall a fait le tour du Sénégal mooy leader am Euh, pour euh, euh, recueillir parrainage citoyen mais da ngay far ci wéyu béy ne gars yi duñ jël risque yóbbu parenage boobu parce que mën nañ leen ko recalé. te moom aussi Barthélémy Diaz wax na ko. loolu mën na mën na def suñu xel ne ñoom parrainage des élus la ñu defoon seen yaakaar pour yóbbu ko. c'est ça fi nga xam ne que mi ngi wax ne moom dañ ko dañu bëgg a xañ Barth Khalifa Sall parrainage am. moom moo loolu yëpp tamit c'est une analyse c'est une analyse politique aussi mën nañ ko def. Mm. parce que tey jii. ñëpp xam nañ ne parrainage citoyen bi bu ñu tiiree ba pare am na position yooyu génn yoo xam ne mais boo fa demee yóbbu parrainage citoyen tu n'es pas à l'abri ñu recalé la mm-hmm. ah. peut-être que boo amee chance nag bokk ci ñu njëkk a tiiree peut-être mën nga jàll mm-hmm. mais bu fekkee ni da nga sori sori sori mais il est préférable boo amee parrainage de député nga jël ko te Khalifa Sall je pense que am na sax ñu critiqué woon dialogue bi ne on a arrêté le nombre de députés par rapport au nombre de députés de Taxawu donc qui était de treize tey jii bu fekkee ni dañu topp li nga xam ne moom lañ njëpp di njort que le ministre de la justice bind assemblée ñu ñu ñu ñu ñu ñu da jëlee fa Barthélémy Diaz c'est vrai que mën nañ ko remplacer mais ban période c'est ça c'est ça aussi loolu mooy sew sew bi parce que pour nga mën a parrainer il faut que ñu installer yow en tant que député. Mhm. yow député biy remplacer Barthélémy Dias mais diggante bi ñi ñu ngi wax il faut une session xaw ma te session bi mënu fi amat. Mhm. donc est mën na am ay relents politique mhm. euh, donc mu nekk loo xam ne aussi lu lu lu doy waar la. Euh, loo xam ne aussi kenn mënu ko bañ a jël en en compte. toujours est-il que voilà Barthélémy Dias moom pour en revenir à lui. moi je pense que aussi il doit s'acquitter hein, de des vingt cinq millions yi nga xam ne aussi yoon moo ko ko teg parce que aussi mënoo ne yow. ah moom moom nee na euh, du jox nervi wala famille nervi non loolu xaalisam ñoom dañu ko lekk loolu amatu décision bi et aujourd'hui bu ko waxoon première instance bi nga xam ne il avait la possibilité d'interjeter appel. Mhm. mën nañ ko ko nangul mais tey moom moo def appel. même ñu verdict bi ñu ñu conserver verdict bi tey aussi il doit s'exécuter mm-hmm. parce que aussi ñu ñuy jiite il faut que ñu nekk ay exemple aussi cest dire yow démb noo di victimiser wu ci justice tey justice jël décision à ton encontre nga ne doo exécuter loolu tamit ça pose problème mm-hmm. il faut que aussi ñun ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite li nga xam ne mooy yoonu dëkk bi ñoom ñu jiitu ci mais sinon aussi demain sénégalais boo teg loolu mën na bañ. Mhm. mais je pense que il va le faire te tamit s'il ne le fait pas aussi il y a d'autres moyens. Mhm. la justice aussi a d'autres moyens pour le contraindre à le faire te peut-être que loolu bu ñu ci yeggee du baax ci moom. donc je pense que peut-être loolu c'était une déclaration mais aujourd'hui qu'il est maire de Dakar ah. il va peut-être reconsidérer peut-être sa première position pour s'acquitter justement parce que ñee tamit ils ont perdu leur leur leur enfant. Euh, yoon moo jàpp ne ndàmpaay boobu yoon la. Mhm. mu jox leen ko donc lu ñu war loola. na leen ko mhm. jox aussi mhm. jàmm na ñooy quoi ba ban lecture par rapport à cette décision de la Cour suprême ci mbiru Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz. mais di nga ma may benn paragraphe rek. ci investiture affaire bi dem waxuma ci tuuti rek. oui. démb man li ma fa gis dama gis euh, benn parti boo xam ne dislocation bi à l'interne. moo leen mayutoon. ñu dem ci benn place publique bu mag ndax mi président ne carrément Amadou Ba la tànn gis nañ ne am na ay rébellion am ci biir te risque lay mën a nekk ci ñoom bu dee problème massification mobilisation mënuñu ko mën nañ ko bañ mais risque laa jàpp ne moom lañ doon moytu. ñaari ba président waxtuñ ci ne donte Amadou Ba mooy le candidat de la l'APR il sera toujours le président de de de de l'APR mhm. benn côté dama ci gis ne. Euh, li ñuy yàgg di wax naan un président de la république warta nekk président wu parti kon foofu président leeral na Amadou Ba ne boo nekkee président de la république aussi tu ne seras pas un président de parti ñetteel ba mooy président Macky Sall mooy le directeur de campagne de Amadou Ba c' est normal damay dégg naan mu ngi koy nëbbu jant week mais Amadou Ba bu fekkente ne président liggéeyul liggéey bi à quatre-vingt pour cent pour mu xaalal yoonu boppam ce sera très compliqué man damay jàpp ne bu ñu dee ba conseil constitutionnel ba Amadou Ba jàll man ci laay jàpp ne bi ci lay soog a wax ak sénégalais yi génnee li nga xam ne moom mooy programme bu boppam wala renforcer programme donte président wax na ko ne da ngay wu ci li ñu def ci premier mandat bi deuxième bi mhm. yokk ci say xalaat d'accord donc côté boobu man damay jàppale aussi am nañ ci mhm. droit ak seen sañ-sañ seen stratégie la ku ne xam ne ne APR machine politique la amuñu problème dajale mbooloo ci ay place publique parce que bu bennoo ñëwee majorité présidentielle ñëw les partis yi ñëw. Mhm. bu ñu bëggoon feesal benn place publique dañu ko. mais monsieur Conte monsieur Conte aussi maa ngi koy nuyu au passage jox na ma idée bu am solo parce que nee na PS dañoo investir. Mhm. Euh, AFP investir. APR investir na peut-être am na yeneen structure nar investir Amadou Ba est-ce que c'est pas au terme de tout ça ñu def nag. benn investiture euh, ah bon oui d'ailleurs sax ils avaient wax nañ ko ah nee nañ avant ñuy dugg ci kii dinañ ci benn hmm. rassemblement bu mag. très bien maa ngi nuyu Ndiolé Ndiolé waa Ndiolé sama <laughs> sama njëkk la. alors ah, par rapport ak l'affaire Diaw Diagne waa Taliban ah, waa Taliban. team bi quoi team bi man nuyuwaale Pape Modou Fall rek <laughs> suma jëwriñ bi. may ñu lool may ñu lool rek. parce que c'est interactif oui bien sûr ça quoi euh, xamoon na ne lii. du ci am li mu bëgg koo xam ne xës nañ laa àtte ba nga tëj juróom benn weeru kaso ci deux ans yi nga xam tëj nañ la ko boo ñenee appel yow yaa dem ñaani appel yaa ne da ngaa d'accord ci li la àtte xanaa kon tey boo ko verdi si cour suprême joxoon dëgg juróom benn weeru kaso mu tëdd xanaa kon dañ ko koy delloowaat am na loo xam ne stratégie de communication kese la wax na ci ne conséquence bi mu ciy bañ mooy mu perte ndombol tànk député parce que mun naa conséquence Khalifa Sall ci parrainage député Fall Abdou maa la wax fii parti yi wala coalition yee am treize députés assemblée kenn du ci dugal parrainage citoyen kenn ci ñoom du ko ci dugal dofuñu du ñu jël risque bi xalaatuñu ko te ba ñuy toog ci dialogue bi da ko waxtaane ba dugal ci parrainage député ñoom ñëpp xamoon nañ ne seen avantage lay doon parce que bu ñu wéeru woon ci parrainage citoyen musiba imagine yu def tirage au sort le parti au pouvoir jël ndaare <laughs> ci tirage au sol fan la jëm kooku day foruglo ñoom ñëpp xam nañu ci treize députés yi li ñuy wéeru ci mais Bart dafa wax ne du fay amende bi ñu ko amendé mooy vingt cinq millions mais bu fekkee fay ko mais dafa am ay procédure judiciaire yoo xam ne moo wax ne bu ñu la attee daan la mm-hmm. nga war a fay nangam te fayoo ko mais tribunal day envoyé huissier xam nañ Bart bi ñu koy mun a fekki constaté la nga xam ne yor na ko ci valeur bi vingt millions wala vingt cinq millions ñu récupéré ko ci moom jox ko ay mbokk ñi nga xam ne ñoom la daan ñoo ñoo ñoom la faat seen doom am na loo xam ne aussi il faut qu'on revienne à la raison